xam liggéey. waaw sëñ bi daal di ko seet di ko seet. waaye seen pasteur. te jébbalewul ak seen yéene. moo tax mu seet si. sant si boromam. ci jaar gi fi jaaroon daaw. na meloon. ñëwit muy muy muy ak soñño ci yéen. mooy yoon wi. xool fi liggéey bi toll. sant ko boromam. yéen ngeen xam ne ngeen liggéey loolu yëg ne yéen a ngi liggéey. mu xam fi ngeen toll. xoolee yaatuwaayu liggéey daara ji lu mu fi nisee mu xam ko mu mu gisal boppam lii ma yoon ba na gàmb bi suñ safaal bi daa am sërëb sërëb bu nga ñëw ci morom teew waaye ñëpp a ngi def kenn desul parce que Fall gépp teew nañ ñu ñaare seen cant ñu ñaare seen siyaare ñu ne li nga def day moom bëgg leen dimbali dafa xeetu parce que ndimbal la ñu ngi indi fii ndax bu ñu joxee ndigal rek dinañ joxal ndimbal ndigal nag sa xol seet ci kuy tàmm nañ ko ci naan rek noo ñaan si parti mag yi alhamdulilah rabbil alamin kon noo ko bëggee rek defee ko jàpp ndigal lool jàpp lool lii lu rëy lu rëy ci Kase Rafaal la sëñ Tuubaa mu tàggu Kase Rafaal dafa ñëpp da war a tëddee kenn warutoo toogal toog baa ngi bàyyi dund sax waaye noo jégal na kàddu yi ndax kàddu yi kàddu yi kàddu yu néew la ndax taali moom dañuy wax ne ci diggam ak sëriñam daa war a am néew dafa xew sang ya bu yëkkatee ay kàddu day mel ni loolu ak mel ci moom waaye bu ñu dugalee digal nag day mel ni day dox loolu ak topp la kon nag Cheikh Moussa Baye Fall Cheikh Moussa Bassirou Nawel noo ngi lay siyaare baax dégg kàddu yi joxe yi nga bi mm-hmm. bëgg nañ ci lool xam naa bëgg noo indi ndimbal rek mu ñëw xam ne mënu ko yónnee da am ñoo xam ne bëtam yi xool bëtam yërmande yéen di xool ci la suñu loolu fi ak mucc te xewal yi bu baax a baax a la seet loolu a wax a am jombal jombal bu ko defalee loo mën defee loo mënul su ko defee loo mënul defee jom waaye nu ko lii nam jomanoon day jomanoon daan ko am déet te liggéey bi tàmbali ak agagut borom a seet si ko ñeel ay gërëm bi def loolu moom ba nga xam ne lépp a ngi ñëw yàlla suñu borom kat du ma ci wax sax waaye yëg gi daal la bëgg yëg yi ndax mën na ko jaamu ba yokk ko dara mën na ko muy wàññi dara waaye yëg gi doole ci lañu dimbale yow yëg gi nga indal nag kon ci lañu dimbal bàyyi faal yëpp nekk tey kon noonu ñaan ku dugal tey dama ci kaw suuf ci jullit rawatina nga dem mu rëcc yaakaar si Serigne Fall tey àdduna ak wàllaataa ne ñu ko defoon tey. lii tollu àdduna ak ne ñu ko defoon tey. bu dara mbéy mi kenn parce que ñu ngi ci àdduna ji da nga ndawal yàlla lu mu fi yebal la ñaan na ci barke Serigne Fall mii nga ñëw tey. parce que sama commande bu baax jaag sama jur bu baax ba. dafay mën di jóge tey. bu fekkee diggante dara na lépp jeex tàkk tàkk tàkk. Serigne Touba bi nga xam ne moo doon rek cënt suñu borom sant ko yàlla. yàlla yóbbu murid yëpp ak jullit yëpp. kon dañu leen sant ko nu mu ko bëggee woon defoon ne. ndax ko yàlla itam làq seen gërëm ndax gëm nañu yàlla bu baax ndax ragalul corona bi bëggul Macky Sall yow la yow la bëgg dañoo yaa ragal yàlla yàlla ki la seen tubaab bëgg kon bu nu waree ragal yow la war a ragal bu amee bëgg yow la war a bëgg kon yow leen bëgg yow leen sopp yow leen yaakaar kon nag nu ngi ñaan saa nga yàgg fi lool ñu ngi yàgg lool te wér li nga naal ko wajur bu baax wa naal ko sa maam ja lépp nga àggale ko jëm ñu ne ko àggaleel ànd ko ñu ko bëgg a àggal àndal ñëpp parce que seeraan baax ak seen jëm baax tan noonu baax Mbàkke tan noonu baax sëriñ bi dafa wax ne ay kàddoom dana gàtt lool mu ne dafa sant si sant suñ boroom bu baax a baax mu ne maanaam buñ nee Baye Fall te Baye Fall di dëgg ci moom te Baye Fall di dëgg ci moom dafay daal di gënal bopp man mu ne daf koy gënal boppam moom mii sëriñ ngir jëmmi sëriñ Touba man ma xam ne rek moo nekk ci xolam mu ne lool rek mooy ay kàddoom dégg na sëriñ bi sëriñ bi neen dégg na kàddu yi bu baax a baax. li ci fas lépp noonu rek rek lay amee. mu ne li ci fas yëpp noonee rek lay amee nag. mu ne moom sëñ Bass mi lépp ci moom rek la ko jaarale woon. waaw waaw. ñu tax ci digg bi waaw li ko fee lemoon koñ bee lemoon koñ bee bàyyi bas xool boo demee ci kër ga bu xalaatee lu koy lu muy ko bala mu ñëw xam ne fii fii lay wax bu ñëwee ci biir loolu moo ci des am baax na lu lu la nuyoo la ma la nuyoo la waaw ndax déglu leen nag ndigalul sëriñ bi sëñ Ndiaye kàddu baatin wax rek yóbbaale la lépp. jataay bii day jataayu mbóot de di jataayu Pastef ndax ku nekk xam na diggante sëriñ bi ak taalibeem ba maam Cheikh Ibrahima Fall nee na kon nag jataay bii bu sëriñ Touba yëkkati ay jéegoom ñëw fi eh, ngir xool fi mu toll. ñëw ngir xool fi mu toll. ni ko Serigne Moussa waxee léegi. ni ko Serigne Moussa Mbacke waxee léegi. néew na Serigne Touba jug di seet si liggéey bu eggagul. na Serigne Touba jug di seet si liggéey bu eggagul. waaye seen yitte. ak seen pasteef. ak seenu taxawaay. ak barab bii. ni mu demee. nee na ndax lépp day wane mbirum Serigne bi rek. ndax na nga ni si daaw. la fi sëriñ bi ñëwoon de ku nekk xam na li fi nekkoon waaye sëriñ tubaa nee lu mu bëgg sunu borom da ko cay fekk si de ndax warul woon mën a gaawi nii mu gaawi nee na kon ku fi ñëw ba gis li fi sëriñ bi naan te sant leen ko ak pastef bi ngeen ci doxe sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di tàmbalee cant gi nag ci sëriñ seex Jëmb Fall nga xam ne mooy kilifa ak njaboot yëpp di ko ñaanal bu baax mu gën fay yàgg yàgg koo wéttali ci liggéeyu sëriñ Touba bii mu ne yéen ñii topp ci ginnaaw sëriñ Cheikh Jëmb Fall te ñëw fi teewal ko fi sëriñ baa ngi leen di sant bu baax ak njaboot yëpp ni ko sëriñ Falilou Fall waxee léegi rek yóbbaale na kàddu yëpp. kon nag jataay bi daanaka du jataayu wax de ndax jëf mëntu ànd ak i wax te yéen de ku ne xam na ni jëf lañ leen xame de waaye xamewul leen ay wax nee na kon nag sant rek moo ci war ndax la Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon rek dafa waxoon ni kër Serigne Touba dafa am bañ kër Cheikh Ibrahima Fall am bañ nee na kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk joxe ndigal. kër Cheikh Ibrahima mbañam. kër Cheikh Ibra Fall mbañam. mooy ñàkk jëfe ndigal. mooy ndigal. kon nag jataay bii. kon nag dëggal na ni. loolu daje na ci kon. loolu daje na ci kon. nee kon li ci des moo di sant rek. ñaanal sëriñ bi. ñaanal sëriñ bi. mu yàgg fi lool. te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. mu àgg na mu ko bëgge rek. ndax moom amul benn yitte soxlawul dara ci àdduna lu may liggéeyal Serigne Touba ak bëgg ñëpp dox ci Pastef di ko sellal ngir jëmmi sëriñ bi nee kon nag na seenum xel daal bu baax ndax bu yëkkatee jéego yu bees si fii lam ñu fasal mooy li gën ci ñun ndax sëriñ bi kat mas naa liggéeyloo taalibe yi ca njaarim ba noppee mu wax Cheikh Ibra Faati ni ko damaa bëgg ngeen ngeen fas li ngeen bëgg damaa bëgg ngeen fas li ngeen bëgg Cheikh Ibra Faati ni ko nañ bàyyi nga fasal ñu Cheikh Ibra Faati bàyyi nga fasal ñu ndax ñun buñu fasee dina am lu ñu fàtte ndax ñun buñu fasee dina am lu ñu fàtte kon kon nag sëriñ bi kon nag sëriñ bi nanu fasal rek fasaaleel taalibi yëpp li nu bëgg lépp ñu am ko li nu ragal lépp ñu mucc ci te lépp nag mi nga aju ci topp ci ginnaawam rek déggal ko bañ koo jiitu ci lenn te xam ne loolu mooy sunu njariñ adduna ak allaaxira kon nee na ñu yemale foofu kaddu yi nee na sëriñ Fallu li nga ñaan ci màggalu sëriñ Tuubaa gi fekkoon nga ci sëriñ bi fekkoon nga ci sëriñ bi ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na te amu ci benn xalaat amit benn xalaat lu dul nam ko fekke woon mu wëyee ko noonee rek ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi wattu ak sàmm kon nag bis bi ko sëriñ bi bëgg woon rek njabootam yëpp itam wéyal ko ba mu egsi fii benn xalaat mënu cee am de lu weesu noonee kon loolu na ci seenu xel daal nee na ñu jeexale ko nag ci sëriñ bi da koo yónni woon ci sëriñ Cheikh jëm joxoon ko ndigal ci liggéey bi ba nu agsee ci koor gi mu yónniwaat ko ni da koo jox ndigal ndax ndogu yi ak liggéey bi mënee su koo boole ñaar yëpp danoo doon farata te xam na ne bu nu bàyyi woon ñu boole ko de kon moo tax mu yebaloon ko ni ko ne leen yeewi ban jotaa ndigal li kon nag nanu xam ni waxtu wun amee ak yaatu jotaan nanu ndigal ci tàmbali liggéey bii noonu lañu ko sëriñ bi sante wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh lépp leer sama xel jëkk dem rek mooy yéen yéen a koy liggéey bi yéen a koy boo foofa laa lay yeesaloon Cheikh Bassirou nee na lii sëriñ bi wax nii liggéey bi ban ko seetee ba gis ko nee na pastif bi mu ci amoon ay yéene ji mu ci amoon xam pastifu Cheikh Ibrahima Fall xelam kenn nekku ci xam ni Cheikh Fall rek man lii Mbàkke boo ko waxee des na ko gëm ndax diggante miir bi ak raay bi mëtul juróomi meetar ba ko sa waajuru bëggee sëñ Modou Moussa Mbacke waajuru sëñ Cheikh Jëmboo la ko santoon sëñ Modou Moussa Fall booba la gënoon a jafe at yan waxoon Cheikh Moussa Fall taxañ na ko ànd ko mbooloo mi sëppeel ko fa ko sëñ Modou Moussa Mbacke bëgg ceeguñ ci limba ni ko alaaji rajo waxe liggéey bii Cheikh Moussa Fall Falilou wax na ko bu dul benn du ñaar liggéey bu ne am na woote bu ne am na sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue fekk ko sëriñ Saliou Fall fekk ko sëñ Cheikh Mbacke Fall fekk ko sëriñ lu fekk ko Cheikh Moussa Fall lu fekk ko waaye ni nu fekk fii nga toog mustu am yoon amul tànk ginnaaw gëme nañ ko ci sa toogaay bii ak sëñ Cheikh jëm fa mu toog la toog lay jala fee ci feer mën na ay gën a liggéey bi ciment bi dañ ko mujj delloo kon loolu lee ñu tàmbali woon moom la Alaaji Ibra jël wax nga ñaan ci doole Serigne Touba sa waa sa maam ja sa doole waajur Cheikh Bassirou Mbacké doole bàyyi ba Cheikh Mourou Sa Fall doole maamam ja Cheikh Ibrahima Fall saa borom bàyyi la fi bàyyi ko fi ban jox la caabi amiin kaw la jàkkaarloo kaw. waaw kaw. may leen may leen may leen. da ngeen di def nii may.